dëkk bi nag jàpp nañ ne taxawaay yi war nañ ko yokk jàpp nañ ne lii di wàllu assainissement lu ñu war a yokk la du limu xaalis yuñ ciy def assainissement kenn du ci def di lim xaalis bi euh, ndaxte da ngay gas di suul pour pour régler ay problèmes yoo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du ko inauguré kenn du ko suul donc euh, loolu moo tax jàpp nañ ne euh, mbënd mi ni mu mel ci ci ci dëkk bi ak jafe-jafe yi nga xamante ni constaté nañ ko ci wàllu voirie yi jàpp nañ ne laaj na beneen taxawaay boo xamante ni bu gën a am doole lay doon pour ñu mën ko régler définitivement ndax ren ñëw daaw ñëwoon ngeen màggal waaye gis ngeen ne fa jafe-jafe yi amoon dafa mel ni ren fa la jafe-jafe yi amaat loolu nag jàpp nañ ne euh, bu ci taxawaay bu wër amee bu wér amee daal di koy gën a mën a saytu kuréel kuréel gi koy saytu tamit taxaw ci ndax dañuy wax ne la pluie est le meilleur contrôleur